am gars yi gis ngeen ko comme ni leen ko waxee am ah, ak GMTV dañ ñoo topp ba mu sës duñ bàyyi dara ñu ñëw fi ah si Kuto Ñafa concert bi ndeysaan mënoon naa wane du ma fi ñëw waaye déedéet mu nekk artiste moom tam bu cool ku oyof ah dégguma soose nag waaye tey dinaa traay soose ah mu wax soose ma tontu ko ah waaw ok exotique kon dama laa ko olof bi oh boy nuyu nañ la. ah Ngejo Ngejo Ngejo eni mbaara. ñu bëggoon a xam tey sa teewaay tey si Kuto Ñafa concert bi lan la woon ba mu la jëra nga bàyyi sa soxla ñëw eh, nice nga wàcca ñu bëggoon a xam sa connection ak One Pac lan la Yeah, one bag like is a brother to me, and secondly, uh, uh, uh, one bag mo moldi me alonko uh, nyanda ka fasale because Gambia ndole nyo ndole da malem ndole se nyo fasano like the obo ni mo man juduna mbuka judula mo man to koma mbuke to koma and secondly one bag la ko na manager from be around le uh, sibo para abam fair one bag la ko la akonya nga willing ata nga one bag support because like one bag na sida ala interview la kama explain ko about life dole kono suwaye wallahi bulala laftatana kam ni wayni mumuma magoye wala kon like wo jakalo warla andu like one bag be a story ndindala story lafta kam mulul ne so and secondly c'est brother to me yeah wala na fidiranan kana ka support dal yeah am ngeen ko am dégguma sose waaye lu mu wax dégg naa ko te yéen ñi tamit dégg ngeen ko comme nu mu ko waxee dafa ñëw fi tey taxaw pour jàppale One Pac brodaam doomi ndeyam ci nga xamante ne ñoo bokka musique bi comme One Pac la su luusi Gambie la ñoo bokka ndey ñoo bokka baay rafetal xol yi liggéey bi mun a rafet ndax Gambie yëpp benn la amut góor amut jigéen comme lu ma dee faral di wax suma interview ak moom One Pac si weeri koor moom mosoon a wane ñetta ñi dañ soxlante mooy artistes yi promoteur yi ak am media bi ndax ku si amul rek sa morom du dem moo waral ne comme benn bi togetherness bi rek ba léegi loolu la nekk di wax foofu noonu ah oh ñu laa jaajëfa kontaan nañ torop yow tam sa ah, perform bi rafet na thank you very much oh kono damande ñande introduce la komo mum kono damande sanda sanda sanda sanda sanda sanda okay okay one more time come forward come forward come forward no belittle some smoke and can music store we need some Zambia. come forward Zambia. can music store some smoke please no belittling, no chituneya. money. there is no chip. Ah, ika ika one pack le fight, but oboko. Moman nyanta mo belittle la Gambia konocha. Mo bele lafta nyanta kila killing Oh boy, iko no chituneya. We welcome you on our Kurto concert. Thank you. na mandoko woke. I dey go follow na ndikufuna unamando kuwoke tikwavukaranoumakoiamananoyaete satesumalonaliyejafuesatembo yakolonalimantonkomutasukumekora apaonalimantonkomutasukumekora usingaye pujan sambanjayi barawai satekelomambete sambanjayi barawai allainduwavukaran puliya bende fala pase kunyadede puliya bende fala be soto bara kona koro jende Tikili bula kone kiri go jende Nika emizi akonya sama Na mekano sama sila Chajija Dusu dama yesu mule Dusu dama yesu mule Ila da da mule Baka di seri Na mekano jende Mimekano jende Oh jiga jende Na mekano jende Na mekano jinni, mimme kanu jinni, koro diga jinni, nami kanu jinni. nusuyarudoro kuninnuyangal tamalannunaisi sadesumulunali yafrisakingu yokorunali mantonkomutasume kanala abaunali